muy ànd ak yar ndax ku nekk mën a euh, jëriñoo ci kàddu yi donc deux minutes rek defe naa ni ku ko wax ku ne mën ngaa tënk daal di may sa morom euh, mu dugg alors ni ñuy duggee léegi nag ci waxtaan wi yaay booy bokk na ci li nga xamante ni euh, yow moom fi toll nii nag eh, comme ñi ma ñu bëri di woowee di ma ko wax naan ma sa yaay ji moom defe naa dafa am lu koy waxloo xam naa di ñu wax lan moo lay waxloo ndax révélation yi nga jot a def yaa de cela cinq ans defe na néegu yu lëndëm yu bëri yi nga xamante dinañ ko jàpp duñ ko jàpp waaye ba tey mu mel ni loolu euh, xaw na mel ni lu xaw a jafe ci réew mi alors révélation yooyu nga doon def yaay booy ci Ousmane Sonko ba tey jii lii am euh, noo ko jàngatee. waa Chérif man awma ci benn jàngat li ma sunu mhm. borom leeral ci affaire usman Sonko. Mhm. Euh, loolu la ma leeraloon ci jaari saw di ma ko leeral ci keneen ak keneen. koo mhm. xam ne tey nekk nga ci jafe-jafe jublu ci man walla ma am soxlay. lijjanti say mbir xool ko lan moo doon jee sa jeexital ci kàttanu sunu borom. Mhm. parce que loolu sunu borom moo koy may chérif ba tey ci lool moom moo tax sax ñuy def liggéey bi. Mhm. parce que yàlla bu la wuyoo ci lenn di la won lu leer loo xamante ni. wanu ko kenn daf di dafa lay jox message pour nga véhiculer message boobu. Mhm. mais ñenn ni ñu ko jàppee tëgg dënn wala maa mën yàlla rek moom mooy ki nga xam ne moo mën lépp moo yor lépp. waaye daf ci am ñitam yoo xam ne daf leen tànn def leen moom mooy ñoom ñoom ñooy man parce que am na ci loo xam ne dañ koy gis. Chérif am na ci yu bëri man dama koy gis. ba am mhm. dessin yoo xam ne dafa may jege. Mhm. man sama famille buy ñëw dama koy gis. Hmm. donc du nekkul ni affaire Ousmane sonk wala keneen looloo tax te yàlla nattoo ma liggéey bi waaye bëri naa lu ma mën a def. Mhm. mais lii suñu borom moo ma ko nattoo def ma ci. may ndaw boo xamante ni tey am na lu bëri tey daf ma cee teg nattoo ma ko pour ma nekk ci lool pour di am ñoo xam ne mën naa leen cee jàppale pour seen côté yi nga xam ne ñu ci jëm mhm. muy ci feebar muy ci côté danga am gàllankoor muy yëpp sunu borom mën na ma ci leeralal ba won ma loo xam ne loolu nga war a def muy sa sarax mais Ousmane Sonko la may wax ci sama àqulaay taalaa di ko waat ci sama borom ne ba ma koy gis noonu laa ko gisee. Mhm, da nga ne woon di gis lu bëri lëndëm. Mhm. waaw dama gis bunt yëpp tëju. Mhm. fenêtre yëpp tëju waaye gisuma moom mu dugg lëndëm na nag lëndëm bi mooy. gàllankoor yi ak ndok ndok yi ñu koy teg mën nañ ko teg lu nekk waaye mën mënaguñ gis bunt buñ koy tëjee parce que Ousmane Sonko tam nit koo xam ne dafa làkkatu ci ginnaaw baateen boo xam ne ñu bëri xamuñ kan mooy Ousmane Sonko looloo tax nit ñi di jaaxle wala ñuy jooy wala ñuy nekk koo xam ne dañu dema Ziguinchor Ousmane Sonko sax ñu bëri xamuñu lan moo làkkatu ci biir parce que Ousmane Sonko ay maamam dafa am lu ñu xam mhm. Ousmane Sonko dafa làkkatu ci ginnaaw baatin kon am na ci loo xam ne bu ñuy jooy ñu jël lépp ñu teg ko ci loxol yàlla mhm. parce que moom loolu laay wax parce que képp ku ma ci woo rek jooy wala nga jaaxle dama lay delloo bëri woon nañ yaay booy di jooy nag waaw parce dañu am ci man yaakaar parce mhm. toujours dañuy suivre sama actualité toujours tamit damay gis ma ñuy wax sunu borom di antal samay kàddu mhm. du man nag lépp yàlla la parce que yàlla mooy dénke mooy maye lu nekk doomu aadama loo xam ne boo ci tegul sa dën rek mën nga ciy jëriñ ay doomu aadama mhm. parce que yàlla mooy def loolu d'accord mais tey fi procès bi tollu tamit nga gis ni am nañu ci jot a ñàkk seen bakkan gis coow li ni mu bëree surtout rawatina démb euh, li jot a xew ci réew mi euh, yan jàngat nga ci def yaay boobu waaw Chérif démb gis nañu réew mi yépp daanaka mhm. tàkk na amul foo xam ne mën nañ ko mën nañ ne fii bërëb bii fekk xale yi jóguñu mhm. nit ñi manifesté wuñ pour bañ benn injustice boo xam ne moom moo ngi am ci biir réew mi mhm. pour Ousmane Sonko euh, ñàkk demam procès mooy mhm. comme saa su ne moom dafay topp di dem procès te heure bu demee procès amul benn sécurité boo xamante ni soit police la wala gendarmerie ñooy mën a gérer moom sécurité pour mu dem. Mhm. parce que da ngay gis ñenn ñi naan lan moo tax Ousmane Sonko demul. Mhm. parce que gis nga doomu aadama nañu bàyyi topp suñu naxsu topp suñu bakkan mooy. Mhm. nga topp kenn wala nga een ko wala nga xool sa intérêt personnel parce que Ousmane Sonko bu doon intérêt personnel am don dong lay xool. kon heure bi abandonné dem tëddi këram naan ataayam lekk ceebam naan ndoxam. fayeeku salaire am jàmmam mais ba mu commencé combat bi nga xamante ni dénoncé. ñu lekk suñuy milliards ñu lekk suñu xaalis. ñii def nañ lii ñii luubal nañ tey ba mu duggee ci dossier Mamour Diallo bi rek la la affaire bi éclaté dossier bi ñu tenir ko def ko muy arme boo xamante ni tey lii moo tax Ousmane Sonko di jànkonteeg gàllankoor yi aji saar ñëw dugal ci loxoom di wax loo xam ne xëy na lu amul preuve daaw ba ren gisuma ne tey la ñu war a mën a am preuve. pour jàpp ko di ko këll këllee di ko yóbbu fii di ko jaabaa jonge fu nañu yóbbu ko fa mu fay taxawaan mhm. tey bu ñu yóbboo sa tey subaa ñu renvoyé te preuve amul ci ki nga xam ne yow mi sa bopp yow yaa naan tey diw mii def na ma dara parce que nit tam doo ko tuumaal ba pare te mënoo indi benn preuve mhm. boo xam ne dañ koy teg Ousmane Sonko bañul ku ko daan waaye ci kaw boo koy daan tamit yow mi nga xam ne yaa jiite yow yaa mën a am sécurité muy nguur gi waroon nañ ko mën a gérer sécurité personnelle bu demee nag ba dem bég dikk bi di ñëw te dara lu leer mënu ci am ci ki nga xam ne mooy accusé parce que si toog tey ñëpp gis nañ ni mu taxawee woon ci côté justice. Mhm. ñëpp gis nañ certificat médical ak keneen ak keneen koo xam ne tëj nañ ko parce que fii tam lu ñu war a bàyyi mooy lenn. Mhm. nit da nga war a gérer enquête topp enquête ba am lu leer nga doog a tëj borom mais fii buñ ne mbilim lacc rek bala ñoom bala ñoo enquête. pour ndax leer na wala lenn dañ lay njëkk a defee rek. Mhm. man loolu gis naa ko. bu la fa vendredi fekkee lundi bi dañ lay defeer te fekk amaguñu lu leer ci enquête bi waaw waaw parce que viol tam boo xam ne dañ dañ ciy topp nit bala nga koo dem bay ko yóbbu jugement dina fekk réunir nga loo xam ne parce que capitaine Touré li tax tam moom ñu sanctionné ko ba dàq ko lii tam ci la bokk parce que nga def ay mission di liggéey ñu wóolu ko mu nekk jeune gendarme boo xam ne il est gradé nekk ci am ay chef am wóolu ko di ko dénk mission bu ne ñu koy dox bu demee ba gis ne lii mooy yoon mu bind la ma daan bind def la ma daan def loolu bu demee tam ba dàq am ci tam war nañoo seetaat suñu bopp seet suñu Sénégal ban tànk lay doxee suñu justice tamit bi nga xam ne dañ ko wóolu ñu xool ni muy doxal nan la ko war a doxalee parce que gisuma ñi ñu fi dàq ñëpp. Mhm. dàq boo xam ne doon na loo xam ne euh, bu bu nit ñi nawloo la daal bu nit ñi bëgg la. Mhm. parce que loolu moo tax tey capitaine Touré ñu dàq ko. lii tam moom moo tax ñu bëree bëri tey euh, docteur Gaye tey nekkatul ci sécurité parce que taw médecin boobu ñoom ñoo ko choisiroon mm-hmm. Adji Sarr tam nit boo naan nit man da nga maa violé mm-hmm. yow nga ñëw ba mel ni koo xamante ni viol bu ngay dem ba di ko filmer waaye naan ñëw na fi ñëwaan na fi gàdd na ay pistalawan li kaboy mm-hmm. dafay fekk na nag buñ la ko defee benn yoon te neexu la war ngaa mën a indi seede sagam nag li ñuy wax bu ñuy dem ba xale yi tuut tuutaat sax xam nañ ni tey tuut tànk yi xam nañ ne lii ay ay waxu tappale la ay waxu caaxaan la yoo xam ne Adji Sarr mu ngi ko teg te bu ñu waxee lii tey wax tey ëllëg euh, affaire u Sidi Ahmed Mbaye bi tam am na lu mu teg mooy 10 millions yoo xam ne vidéo lay laaj mhm. Ousmane Sonko Adji Sarr moom moom dafa jënd ngelaw mhm. euh, Ahmed Sidi daf ko daf ko jaay ngelaw mhm. waaw ki doon jënd vidéo boobu parce que nee woon na ne Sidi Ahmed def na ko vidéo yi am na tey 10 millions laa la koy jaayee mu dem vidéo yi fekku ca dara ñuy toppante te loolu mujjul fenn bërki Dembo Ndiaye Adji Sarr toog na fi ne. moo dem ci machine bi du ci am problème mu delluwaat ne dafa ëmb delluwaat ne vie privée am ci wax parce que nit tam lu mu la mënta def da ngay taxaw nga wax ko te yàlla rek tax. Mhm. boo koy accuser bu ñu lay jàpp ki nangoo dem boobu ba tey dem nag ba dem bi soof te dem bi mënatul am sécurité nga toog sa kër. man de loolu laa ci gis nit loo dem ba wóolootoo ko da war a toog ba ñu mën laa teg ci lu leer nga mën a dem. d' accord dañuy euh, alors kooku dem na sànq mu ngi doon insister laataa mooy dugg si waat mais tey euh, fi situation réew mi toll yaay booy est ce que politique itam euh, war naa toll fii. waa politique waru mën a toll fii parce que tey doomu réew mi yëpp jaaxle nañu. tey mhm. ndey ak baay jaaxle nañ ku sa jëkkër dem xëy wala sa doom dem jàngi sa xel dalatul mhm. parce que innocent yi mooy xale yu douze ans yi ngi xam ne tey ngor am na ku fa dee ndax mhm. loolu xale bu ndaw koo xam ne focceegul sax ci nen mhm. xale bi dee Kër Mbay Fall xale bu ndaw la mhm. ki dee Casamance xale bu ndaw la policier bu dee tam responsable la borom kër la papa ji aussi woy juram bu euh, góor bi mhm. dee tamit responsable la parce que yooyu yëpp mën na ñàkk ñun ñëpp Sénégal la ñu dëkk